إليك توصلنا بخير البيت والشفيع إنا في لقاء يذكرنا سوى الإب مكشوف برب المحبة يا دم إدريس وعود ويونس ولوط ونوح ثم آل قلتي وداود يعقوب سليم وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب وليسى وذي الكبير يسوع ما وسيلتي كذا بن صعيب وصالح تقينا لدى دارين المنفوش يا المهيمتين بأقمار بدر يا إلهي وسيدي وبالملاء الأعلى شفا كل أمتي إلهي يا مولاي في الأرض والسماء إلى الأمرين لغير كسوتي مشارب أهل الحضرتين لتسقنا عظيم بحجاب الحرب مع كل قسوة وندر الأيام والذنب حاسد وصاب راب البيت مؤلم رحلتي وندر الأيام المعافي سوى الله والرحمن خالق بالتدين مددك والايام والخلق الشاكر سواه ومن هدى رجلت معيشتي مددك والايام والخلق الشاكر لا عمرا ساعة منه تشكو بملء السماء والأرض أية نعمتي ولكنني أرجو قناتي ربنا وإلا بلده آخذا في مدتي ألا إنني فجأة إلهي علية بأمس الضرر قالسا كل وجهتي على همتي لغيرك ربنا كمن قلقت إلا إليك طريقتي اللهم اغننا وما لي ربي أن خضائك مقدر فأبني أن أردى بمر حبيبي وهب لي في الأمر سبات عظيمة على رشد أهل الشوق من كل نعمة وأسألك تقوى عن عبادة وليس مرادي إلهي وقويتي وأسأل رب الله من غير كل ما لي عالم عصير عبادي ونصرتي أعوذ بك التقوى ومن شر كل ما علمت به يا رب بجانب كسره وأستغفر الغفار من شر كل ما في عالم يا عالم كل مهتدي فإنك أنت العالم الحي سألتك أمن يا نسير وعزتي nacer إغاثة شقاء وكشف لكاشف إلى إحدى في جاد كل برية أذكر بك الأعضاء كما وراءنا وإياك أرجو ولا إلى حجتي ومن غراماني يا إلهي وسيدي لك الحمد مما عليك أردت عوائد فضلك حبيبي ومن عوائد رزق سدتي والأوان ما أوليتني رباني من الرفد والإكرام واسع رحمتي إلهي يا رب سواك فيرتجى فانك باقي الآن عند الخلق اليد في النخاء وغير مدعن يا إله همتي وفي الأمر والسلطان والملك لهما سر لك مولانا ويسر بمريتي فما لك مولانا إلهي مشارك ربوبية تربيه يا ذي وعمدتي وفرقا يا مولاي غير مضاهب لأنك في الإبداع موصوف عدتي وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير مدينتي

ترك اشتكاء حرام عندكم أبدا يا خبيا حج فقد الحاجة تدير واي واي مهدي ركبا كوثارا مالي ركبا جسم ودبالي ركبا قد يقوس به إن دامانة صدقي صاحب الكتم منبع العرفان صاحب التاج واللواء على من منعوا للإله حظ تداني وصدافتي أصاب لقلبي بالدنا والجواه وبالأحزان صرت من شدة الغرام ليفا والدواء بحب الشيخ تجاني شخصي أحمد التجاني إنه القطب والمميت لكل الأولياء من فيده رباني أنا كشبت شيخ أحمد التجاني وله الفضل فوقهم من قديم هبة من مشيئة الرحمن والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه جميعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا ومولانا أحمد بن محمد السالمي التجاني سخان الله من بحره بأعظم أواني السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare ci bis bu màgg bii ci bis bu tedd bii nee naa leen bis dana màgg ngir la xew ca bis ba bisit des na ca màgge ndax la bis ba làmbool bis bii nag day bis bu tedd ba ñu bare tedde di bis bu màgg ba ñu bare màgge ci di bis bu rëy ba ñu bare rëye ci di bis bu bare ay xéewal ba ñu bare faf ci amee xéewal muy bisu Cheikhina Tijaani Chérif al Fatimi di koo xam ne li ko yàlla may masu koo may benn wàlliyu ndax koo xam ni lépp lu génne ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi ci ay leer ak i fuyoo daat ak i mbir yu mëneesu la tudd bu jaaree ci yonent ya ba pare balaa muy dem ci benn wàll yi ci Seexu Tiijaan Chérif lay jaar mu kapte yépp téye ko seet wàll yi bu nekk la nga ca tollal mu jox la ko kenn la ko yàlla masa nome ci àddina muy Seexu Tiijaan nomewaatu ko kenn yàlla may ko loo xam ni xéewal nee naa bu fekkee làmmiñ mën na koo tudd su boobaa jeex weesuwu ca làmmiñ fekk mi ngi mën a tudd xéewal xéewal googee làmmiñ di tudd jeex weesuwu ca xéewal balaa ñàkk a jeex mu àgg foo xam ni làmmiñ du ko mën a tudd te mooy xéewal yi yàlla may Seexu Tiijaan ci bis bii bañ ko ba xéewal yooyu téere yi ci mas di wax muy yi ci mas di wax téere bu ci wax ba bàyyi fa nga yem fa la di tàmbulee kon leeru bi nga waxee li nga xam lépp ba leeral ba defe ni yaa ci ne laaj ya foofa lay tàmbulee te dootoo am réponse loola nag yàlla may ko ko ci guddi gi yàlla may ko ci loo xam ni tuuti la ciy jël di rafetale ay taalibeem tuuti te tuuti joojee ci la ay taalibeem rawe ñi bokkut ak ñoom suñ nogay jëgg naa léegi mu di ko way loolu moo tax yàlla may ko taalibe yoo xam ni yonent bi jàkkaarloo moom ni ko say taalibe yow Cheikhu Tidiane samay taalibe lañ sa gaa yi nga xam ne ñooy ànd ak yow jàppal ni samay àndaale lañu amul beneen nitu yàlla bu ko yonent bi ma a wax yàlla def ñaari mbooloo moo am mbooloo moo xam ni seen yitte du dara lu dul chaque jour jamono bu nekk ñi ngi seet ñoom nan la ñuy def ba dem ci yàlla ñoom ñi ngi seet jamono bu ne nu ñuy def ba dem ci yàlla loolu rek mooy seen yitte gaa yi mbooloo moom baax na walla baaxul ah baax na de waaye am na meneen mbooloo moo xam ni dara ñorul sunu boroom dara yitteelul sunu boroom lu dul ñëw ci kàttanu boppam jëlal leen boppam indi leen ci jëmmam ja sunu boroom wala déggu leen mbooloo mee lenn rek mooy seen yitte chaque jour ñu ngi seet nañu demee ci seen boroom am mbooloo moo xam ne sunu boroom moom moo am yitte ak bëgg-bëggu jël mbooloo moom ci loxol boppam ak kàttanu boppam indi leen ci jëmmi boppam ñaari mbooloo yooyu bu ci dàq man ngaa am yitte jëm ci sa boroom départ te doo ca yegg ndax bare na ku bëreeg seytaane ba yenu ko daan ko seytaane xotti sa mbubb dafa am benn nitu yàlla boo xam ne dafa jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba yegg ci martabab xetu seytaane da koy xeeñ bu seytaane traversé foofu yépp xet gi da xeeñ iblis mu dem di jaamu yàlla ba léegi xeeb na xet gi di ko xeeñ mais jëmmi iblis lay jàkkaarloo mu am yitte nag ci ni fu mu gisati iblis dana ko toraxal duma ko ñàkkal ko fayda fa mu koy waxee rek ñu ne ko ah tee ngaa moytu iblis fañ koy waxe rek iblis ni janayet ci kanamam mun leen mi ngi nii duur iblis toraxal ko ñàkkal ko fayda iblis ni patt di ko xool ba yàgg mu ni ko comme yow danga jaamu yàlla ba agsi fii nga agsi te war ngaa dundaat yeneen juróom fukki at ci misaal maag yow sunu combat jeexagul daan dajewaat waaja ñibbi këram ni ah comme man bi ma juddoo ba léegi musumaa mooy sama borom musumaa wàccu yoon musumaa am benn yitteel lu dul sama borom moo mas di yitteel damaa defe woon kët faatu léegi mu ñëw mais comme dese naa juróom fukki at xaaral nag ma neexal li ci des yéen ngi dégg mu commencé nag daawul dem ci boîte yi mais comme nee na dese na juróom fukki at ci misaal il faut mu dem ci boîte yi mos léeg mu dem plage léeg mu dem feneen génn ci mbedd yi xam ngeen naante ngeen góor gi dem ba neexal jamonoom ba defe ni juróom fukki at yee des ndekete yow li ko dese ci dund barewul yàlla faf ko rey ca neexal ga Iblis ne waaw kooku moom man la daan na ma waaye xotti naa mbubbam kon bare na koo xam ni départ na jëm ci yàlla te yëggul am ku départ ba jafe ba jege yàlla yàlla raddul ko boppam dellool ko boppam ndax jéppi ko waaye ñi ëpp gaarante mooy ñi nga xam ni yàllaa leen bëggal boppam téyel leen boppam ñooña nag la yàlla di tànn di ko jox Seexu Tiijaan moo tax mbiram léeg-léeg nga dégg ku dugg ci tariixa bi ñu ni génn na daa dugg génn déedéet duggul woon yàlla moo ko bëgg a duma bëgg a am fu mu ko jaarale te fokk nag mu mos foofu ndax tariixa bi boo ci duggee jàpp ko yaag tariixa bi ak loo mën a def nag yaag moom ba mu dugal la àjjana soo ko jàppee ni da koo bàyyi déedéet bàyyiwoo ko yàllaa la bëgg a duma ndax bàyyi gi nga ko bàyyi yaag tariixa bi ak loo mën a def ci lu baax yaag tariixa bi dana la téye ba dugal la safara yàlla na ci yàlla musal moo tax seen Babacar si jundi ni tariixa bi yàlla mooy bëgg a ay jaam boole leen ci ndax dugg raw la tudd dugg mucc dugg raw fi nga sukkee di ñaan tariixa bi ñu may la ko foofa nga rawee junniy nit yàlla yu bokkul ci tariixa bi yoo xam ne bu la bu leen peesee ak ñoom ci wàllu martaba ci sunu borom nga daan leen te ñoom nit yàlla yooyu mooy ñi nga xam ni werd nañu kar ba yegg ci seen borom ñooña la ñuy nattalee yow de mais du nitu yàlla bu àggagul junniy nitu yàlla yu yegg yow mi door a sukk di door a ñaan tarixa bi yow yaa leen ëpp doole wer dëggoo nag wasi faagoo da ngaa ñaan rek ñu may la ko moo tax sëriñ ni wa kam unaasin tamannaw bi ala uslubihi maa qada man qaala wa tiini si nee na wa aka bare bare na de te yàgg naa bare onaasin ay nit yàlla déedéet du nit ñii de ay nit yàlla yoo xam ni taman naw ngéejoo nañu mébét nañu bi suluuki ci dugg ala uslub bi ca ràngam ma moom seex ci tarixaam bi bare na nit yàlla yoo xam ne bi ñu demee ba yegg ci yàlla ba gis li yàlla dencal waa kër seexu na tiijaan yi dañu ne woon ngéejoo bokk ci tarixa seex waaye nag sëñ ka Si nee na maa xaddaa dogalu ko man yàlla ma nga xam ne xaala moo wax wa tiini wa zeytooni wa tóori siiniin man xaalawa diin kooku nag ki yàlla bëggal boppam dafa war a xam ni yàlla daf koo bëggal boppam ci misaal rekk lay joxe misaal Macky Sall mii moom nekkandi ci pale bi ku mu woo bëggal la boppam woo la ba ci biir pale bi bu la bëggee teral dana la teral ah ah ah sëñ bi da deen ku wedd nga laaj diw neena moom bi mu taseeg màkki moom xam nañ tase nañ ci misaal rek laay joxe na waaw mu ne waaye day dugge na fi oto di seet màkki bëgg koo gis rang bay bëgg a dee gisu ko mu delluwaat ñibbi leetar bu ne mu bind ko waaye àggul kooku bëgg naa dem ci màkki waaye ki màkki bëggal boppam déedéet da koy jox rande woo ko teral ko ca pale ba bàyyi te li gën a neex ci teraanga mooy ki la teral ba pare desal lu tax mu fàtte nam la teral danaa déggu leen ma xamoo teral nit ba pare dar sa bopp naan cëy li ma daj ci ngan wax deug yalla mënu na ñak waye ki nga xane bam la teralé ba nga génné la ko faté ndax limu déssé ci limu la teral waja dafa gané ji señ bi gané talibé bi talibé bi wo nit ñëpp di ray nak yi rek ba gën nak yi jeex señ bi bañu mu jekk ba yag muy ray xari di ray beuy jekki ba yàgg sëñ bi gis ganaar yi ñëw ba yàgg mu gis fa ñu tàmbalee woon ñuy dagg ci bàq nag yi di mbaxal di ko jox taalibe bi ni ko sëriñ lii xëy neexul la teenoo ñibbi mu ne ko ci nag yi lañ tàmbali léegi mbàq yi lañuy baxal dina ko jox boo moytuwul day ci dëxin mëpp lañ jëm waaye ci am nu mu la terale ba pare dese lu tax mu fàttal na mu la terale kooku mooy Seexu Tijaan mooy ngan gu jeex cheikh ja bu nekk palaatu tey bi mooy dàq bu suba bi waa palaatu suba bi mooy dàq bu tey bi bu tey bi mooy dàq bu démb bi li ñu xamoon ci ngan kay mooy ki lay gànnal démb mooy dàq tey tey dàq suba balaa gannaaw suba nag ñibbi cheikh nag ni la nag kaay nag yow mi ñëw ci man nag danaa la wax ni la ngan gi moom day soppeeku mooy man ni may terale sama nit mooy palaat bu ñëw dàq moroom ci salaatul faatihi bi nga mujjee sikkar bi sëñ Moustapha mi mujjee sikkar ak bi ngeen mujje sikkar bi ngeen ci teg moo ëpp doole ndax dañuy multiplier fa gaa yi tàmbalee woon ba mu agsi ci yow ñu boole ko muy benn salaatul faatihi mi ñu jox la ko nga defaat beneen ñu multiplier waat li nga weesu lépp ak li gaa yi weesu jox la ko te loolu kenn ku nekk ci ñun moom lay jot loolu gaa yi neex na de ah neex na de waaye nag ngan ngi am na lu koy yàq de ngan gi kenn du fi xeex kenn du fi xuloo kenn du fi dóor gone loolu nag ab junji la bu fi xajee rek daañu ko indi sëñ Babacar Si daani kaay leen ma déey leen ñi nekk ci tariixa bi pour ngeen xam ko ñu ni ko sii mu ne alhamdulillahi id maa fi tariixatina alhamdulillahi lamma ah, humul kiraamu bokk هم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب الخبول الرسول وأرباب الخبول aha waaw sëñ Babacar Si xam nga doy na ci may Cheikh rek ponkal mu toll na sëriñ Babacar Si ku mu jàkkaarloo ni la sama sëriñ <laughs> sëñ Babacar Si nga xam ni yéen wóor na leen ni réew mii ñu nekk réew yu ko wër ku mu fi tollool wilaaya amu fi ah si Moussa nee na paa bu garaaw la weesu na garaaw weesu na garaaw dafa am benn maire bu dëkk sunu koñ maire bi feebar ba yàgg mu yaakaar ni dafay faat am na nag foto Serigne Babacar Sy bu rëy bu mu taf ci néegam mu tëdd ba guddi muy janeer moo wax de di janeer mel na photo bi ci gént la mel na photo bi dafa am leer gu fi jóge ba daj kapp néeg bi nee mu gis jëmm sëñ Babacar si mu ne ko dangaa ragal rek waaye yow deewagoo de sa feebar bi doo ci faatu dese na la lu bari meer bi bu yàggul la faatu te gis na ko lu yàgg dundaat na lu yàgg waaw ku am koo xam ne boo ko woowee ci àllaaxira ma nga fa te boo ko woowee fii mu wuyu la ba fi ñoo xam ne ngi fi te boo leen woo fii ñu wuyu la waaye looy doyee leneen ah leneen li kay ba koog ñeneen ñoom itam seen muur la seen wërsëg la waaye yow am nga koo xam ne ma nga ca àllaaxira te boo ko woowee mu immédiatement mu taxaw ñi mu la fi bàyyil itam boo leen woowee te leen ñu taxaw waay waay waay waay doy na sëñ Babacar nag ni hum kër seex alkiraamu ñooy way tedd ña day tallu tedd nga nga ni mu ko jiitale hum ñoom képp rek donc alkiraamu ñooy way tedd ña ca day tallu tedd nga tekkiwul ni ñeneen tedduñu de waaye hum la da koo jiital de muni hum ñoom ashabu rasuuli ñoom ñooy sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa arbaabul khabuli ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoom la yàlla nangul seeni mbir wa ahlu diafi ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoom la yàlla may fulga ñooy woy ful ñooy boroom ful ga ful gi mooy lan mooy gis nga li nit ñi di liggéey ci aalam bi ci lu baax boo di ca defee benn yow mi bokk ci kër cheikh yàlla day jël tuyaabay ñooña ñépp boo leen li nga def fay la fa yow te du ñoom ñu jot seeni pay moo tax fi ne ñun ku tëddi nelaw itam yaa ngi jot sa fexe fexeel ba bokk ci société bi rek te dani wan nuuni maa ngi koy giñ ci nuun wal xalam waaw wan nuuni maa ngi koy giñ ci nuun wal xalam bu nee nuun wal xalam kooku yàlla lay wax léegi nag mbir yii am xéewal yéeg yii yépp cheikh yàlla da koo boole teg ko ci loxaam boo duggee rek nga yëg ak nga bañ a yëg yaa ngi commencé di jot sa wàll ci xéewal yi parce que xéewal mënul weesu am salaatu yoo xam ne ñun rek ñoo am salaatu boo xam ne salaatu yoo xam ni nit ràbbu ko salaatu yoo xam ne nit ràbbu ko salaatu bi ñuy jullee ci yonente bi ñun ñun muhammadul bakri moom dafa mas dugg xalwa doon laaj yàlla ana ban salaatu moo yor sekkere salawaatu yépp ban salaatu mooy bi nga xam ni moo gën a gaawa a yóbbu nit ci yàlla mu dugg xalwa lu yàgg gisu ko ba yàgg yàlla yebal ndaw malaaka walla ca la soob mu wan ko benn fooyu leer ñu bind ci salaatul faatih ni ko li ngay laaj mu ngi noonu salaatu bi dajale salawaatu yépp mooy salaatul faatih waaye booba tudd salaatul faatih booba ba mu feeñee nit ñi salaatul bikri bakri yi rek lañ ci tudd mu jox ko ci fooyu leer bu tàllal ko muy salaatul faati bu ko juutalee muy salaatul faati su ko wëlbatee mbind mi taxaw loolu dañ doon laaj naka la mën a nekke loo xam ne boo ko juutalee mu del si moom du nangoo juutu soo ko wëlbatee ndeyjoor joor du ni mu toogee rek lay toogee day del si waat nit ñi ni loolu mun ta nekk yàlla daal di indi lu ko lay jox nu portaabal ñu man cee def loo xam ne boo wëlbatee portable bi mbind mi taxaw nga juutalaat ko nday mbind mi taxaw dama ni bu ko tubaab bi ma ne ca portaabal ba yàlla man na ko ca salaatu faate ba ci fooyu leer mu jox ko Mouhamadou Bakri ni ko nag mbir maa ngoog waaye am na boroom mu jàll lu yàgg yàgg yàgg na Cheikhuna Tijaani ñëw yàlla door ko wàccee salaatu faate bi ni ko yow yaa gëstu ba xam ban salaatu moo gën a mën a yóbbu nit ñi ci yàlla wan nañ la ko waaye tekkiwul ni da nga koo moom boroom nag a ngi nii boroom mooy Seexu Tijaan ndax lan moo tax muy mooy borom mooy moo ko tuddee salaatul faatihi te bi mu ko tuddee salaatul faatihi ba léegi déggu leen beneen tur ci moom Seexu ko tuddee salaatul faatihi ndeke bi mu nee salaatul faatihi tudde ko ndeke mbir la salatul faatihi boko ko calculé mi ngi lay jox 616 tur bi boo ko calculé moo lay jox 616 boo calculé fi yàlla naan wa allama aadama al asmaa kullaha so calculé loolu allama aadama al asmaa kullaha moo lay jox 616 moy fi yàlla naan man yàlla maa xamal yonent yàlla aadama sekkareeg asmaaw yeeg mu sàmmayaat yépp maa ko xamal te booba xamaluma ko malaaka yi boo calculé loolu moo la jox 616 moo tax kuy liggéey salaatul faati mënoo koo nax ci xam-xam doonte lee jàngul saa yoo waxe lu dul dëgg yaramam moo ko yëg balaa ngaa balaa laa jooy a jàpp nga dajale taalibe cheikh yi bëgg leen a nax ci xam-xam ña nga defe ni jànguñu nga bëgg a nax ci xam-xam ñoo naan waa ji day rek li muy wax dara amu ci waaw yàlla xam na ko yéen ñi kenn mënu leen a nax moo tax sëriñ bu leen yor day sonn waa Kër sëriñ bépp boo xam ne dugg nga ci ñoom da am problème ndax danga nga jàngi wala nga seet nooy def ndax da ngay dégg di conférence ba ak ma sa waay waaye dañ ñibbi affaire bi saful de fi de nii may waxee rek boo demee ñaa garaaw yi day kii rek waaye dañ ñibbi waay kibir lu mel ni kii moom màggal ko loo ma sama xaritoo bul ko tijaani yéen a féex yéen salaatul faati yi cheikh fekk fi mais ñépp la fi nekkal ma ne ko d'accord na maa yow salaatul faati ñépp la fi nekkal waaye ñépp nekkaluñ ko fi bala ngaa xam ñu ko fi nekkal ñu ne salaatu xayru mina naw mi ba joxe ñaari ràkka yooyu ba pare nga déglu boo dégloo rek xam ñu ko fi nekkal kon seen salaatu yi ñun ñooy sikkar salaatu boo xam ne bu dee jawaatu kamal salaatu la mais yonent bi moo feeñu cheikh ñi ko jullee nii ci man jàngal ko jawaatu kamal kon ñun li ni sikkar amu ci lenn lenn lu làmmiñ keree lu nit keree déedéet dajale askaar yi rek xool fii dajale fii dajale fii rek génnee jox say gaay loola dana dox ndax tur yàlla la waaye nag li nga xam ni yàllaa ko ràbbal boppam ni gars yi eh jullee leen ci man nii yéen ñaar bu ngeen di julli du bokk ah du bokk gis nga boo jëlee ñu del siwaat faat faatiha boo ko sikkar yàlla day jox ci da jox ay xam-xam yoo fàgguwul yàlla dana la jox yëg-yëg koo xam ni ba ci nit ki suy bëgg a faatu sax dana ko yëgal boppam man maa la wax lii nit ki ñu bare bare da nga leen seeti ñu sànni la benn baat boo xam ni gannaaw ga la cay topp moo lay xamal ni kii xamoon na ni day dem te salaatu faati loo gën a sa dund di gën a jege jeex ngay gën a kontaan ci sa borom bare na lu waay yor di ko naw di ko gëm di ko màggal waye bu dara desul lu nu di bëgg ñew doto dootoo wóolu loola wax gis nga dem di gëna a sa borom dik sa dund di jëm ci jeex ngay gëna a li nga yor koku day wané né la nga yor moy waaja so yoré waaja nak da ngay fexé bay waaja baaba yoré waaja ba pare doo waaja yorul yam rek du ngeen gaaya gis nga salaatu faati boo ko dee sikkar même ki la wan ne contre na la sax waxul dëgg dalaa contre ci kawaay biir xolam bëgg na la salaatu faati ku koy liggéey ñépp lay bëgg kenn daal dina la bañ mooy ku d'accordul ak yàlla kooku nag bu la bañee moom daanaka moom yitteelu la ndax li tax gis nga boo jëlee xabibu bu mooy firi soppe alxuraan ñaata lettre da ko composé ah 28 lettres Habibu 22 la boo jëlee 22 multiplier ko ci lettres yi nga composé alxuraan mooy 22 multiplié par 28 égale 616 moom la lay jox. moo tax nag. mooy mbàndum lem mi nangu tànq naan mànd lem yi ci des yépp capp mos rek waaye salaatul faati mooy màndum lem mi nga xam ne moom nangu na dëtëm da naan ba doyal muy gën a neex te doo màndi di tërëf kooku mooy salaatul faati benn waaye dafa maa wax ne ma man daal sëñ bi dama lay dénk benn affaire jóge këram ñew nit ku ci kar ñëwa dama la waxna ko sëñ Mouhamadou Lo waxna ko tamala Lo mané ne ko mu ne dama la koy wax buma faato nañ ma yobbu ci waaw man ko saway bu dusono ci affaire yoy ay yobbu fi ak wàccee fi mom ñun ñun dal ñun loolu du sunu affaire mune ma du man du man ma mom sama jëm ci xana wa mune buma faato len ma ci waaw lu ci sayo ko nga deug deug sama yoon nekku ci man way lu tangani lañ la yóbbu tiwaawan muni ni tiwaawan dafa saf salaatul faati ni ma yàlla wan na ma suuf yu bare bare waye suuf bi saf sap ak leer ak salaatul faati moy suufu tiwaawan daal di waxtaana man ba netli man ni ma tarixa bi amul morom xol Seydi haji Malik amna fi men ponkal mo xamni bamuy xale dafa tok ba yàgg mu nekk ak yaayam di salaatu di taxaan tarixa bi ponkal yu jigéen yaa ngi ci yu góor yaa ngi ci bët set muy wax ak yaayam ba yàgg yaayam ne ko eh penku so soowu bii wan nañ ma ne alaaji Maalik mi ngi fa mi ngi Dakar demal nga ziyaare ji ko mu ne ko yaay yow lu la xamal ne alaaji Maalik mi ngi fa mu ne yëg naa ko fi ma toog demal nga ziyaare ko mu départ dem bi mu dugg Dakar bi mu demee ba dox tuuti gis benn waay nuyoog moom ni ko yow xamoo alaaji Malick fan la nekk fii mu ne ko fa laa jóge dégg ngeen wax ci waa ji ne ko fa laa jóge mu ne ko waaw nañ dem masyaare ji ko mu ne ko ah ba ma fay jóge nag booba góor gaa ngi préparé fatu nekk ci kurusam kon nan bàyyi ba suba mun ko mun maa bàyyi ba suba nan dem ba nga ma ne kër gaa nga ne fa la nekk ma door a ànd ak yow dem tëri sa kër bu subaa nga indiwaat ma waa ji wax mu ne ko alaka dee nañ dem ba foofu bi nee na bi ñu ñëwee bi ñu nee tëll jub kër kër gi Seydi Hadji Malick nekk ñu fekk ko muy jaabante ci bunt bi yor kursam naan ko ah kii mooy gan gi déggal mu ne ko kii mooy gan gi mu ne ko damaa nekkoon Mali sama sëriñ Mali la nekk te dafa sore ma bëgg a yeeslu waaye sama yaay sax moo ma wax ni ma yaa ngi fii ma bëgg ñëw nga yeesal ma mu ne ko bàyyil ban dem Tiwaawan waa ji moom it ku am kasfu la bi mu jëwee jëmee Tiwaawan jëm ci pinc mi jege sidi haji malik neena mi ngi seen sidi haji malik tok yonent bi tok ci côté bi cheikhou Tidiane tok ci côté bi ci Cheikh sidi haji malik bi mu accé neena mu ne ko xana yow lii tax nga ne ma négal bañ dem Tiwaawan nee na mu yëkëti jawahirul maani jox ko ni ko yow ñaar ñi ñoo lay jàngal yeesal ko bàyyi ko mu dem waaja dem tëdd gént ay Cheikh Omar Fouti ne ko demal booru Bakel commencé fii ba ba ngay dem Bakel nitu yàlla boo fa gis na ko ziyaare mu yew daa di bàyyi loolu mu jàll mu jékki-jékki tëddaat Seydi Hadji Malick feeñuwaat ko ne ko hé li la Cheikh Omar Fouti yi wax def ko déparel fi nga nekk nga dem Bakel nitu yàlla boo fa gis nga ziyaare ko ba mu yoree téere ba di dem ba àgg ci nitu yàlla booba dañuy bañ a tudd tur mu dem jël téere bi ko alaaji maali joxoon muy jawaahirul maani ba teg ci kanamam ne ko ay doomi soxnakat bu ñu dajee dañoo war a wax ci xam-xam mu ne ko ah saawaay lii mu lii nga ma jox muy jawaahirul moom laa maîtriser mu ne ko nan ci waxtaan nee na bi mu tàmbaleeg waa ji Seydi Aji Maalik jox jawaahirul maani ba waa ji dafa mel ne nee na moom mi mokkal jawaaru maane daa mel ne mosu koo jàng ci kanamu ke ko Seydi Hadji jox pour ngeen xam ni yéen li ngeen am du caaxaan lu mu sore sore sore ñu ngi nuy gis lu nu sore sore sore ñoom ci dégg-dégg gis-gis ñoom ñu ngi nuy gis Cheikhu tiijaan ak i gaayam ñoom rekk ngay woo ci ñun li nu xam ñu wuy sile ca na ko bëggee moo tax wax nga ko léegi innal ixaasata fii kal bu'du ixaasata naka xett liku ga wut xettal ga fii ka ci yow Seexu Tiijaan albodu sorek waajay wut xettal ci yow sore googee mu sore yusrewuhaa day mel na mooy tax xettali ga gën a gaaw taasima xadrik indallah ngir màgg gu sa daraja màgg ci yàlla yaa xamul yow mi nga xam ne yaay weer wi di cheikh léegi nag am nañu lépp ñun mais ndax gëm nañu ko problème bi foofu la ne salaatul faat bi yi ma leen wax amul lu ko gën a mën a faj soxla amul lu ko gën a mën na faj soxla laa wax su mu mën a doon 616 salaatul faatixe amul problème bu mënta régler ci looy dàq ak looy xëcc léeg nga weexal sëriñ lu bare mu defal la 616 salaatul faatixe foo dem ne waajee fi raw mu jël weexalam lekk tëdd kon léegi ñun problème mu ngëm-ngëm la tarixa bi dafa laaj gëm-gëm booy sikkar nga am gëm-gëm sikkar nag ñett ñetti maqaama la dafa am dafa am maqaama boo xam ne maqaamatul am la am boo xam ne maqaama xaas la am boo xam ne maqaama xaasatul xaasati la ñett ñooñu ñoo nekk ci tarixa bi ñooy sikkar dafa am koo xam ne buy wax astaghfirullah ak buy wax la ilaha illallah ak buy julli ci yonent bi la tax mu koy def mooy dafa ragal yàlla lakk ko ki sikkar ndax bañ dem safara di jaamu yàlla bañ dem safara loolu mooy maqaama am loolu moom mooy am yi ñépp ko bokk foofu la mbir yi tàmbulee mais am na koo xam ne safara yitteelu ko leneen àjjana yitteelu ko moom li ko yitteel mooy buy wax astaghfirullah jégguluwul yàlla pour bañ a dem safara mais dafay jéggulu yàlla bàkkaar bi mu def ndax ndax maanaam yeddeel gi ko yàlla di yedd ak ñàkk gi mu ñàkk teggin ci kanamu yàlla yàlla sa tere ko dara mu bañ koo def yàlla digal ko dara mu yàlla tere ko dara mu bañ koo ba yàlla digal ko dara mu bañ koo def suy wax astaghfirullah day wax astaghfirullah pour pour yeddeel googu mu am ci kanamu yàlla ne safara ba yitteelu ko kooku mooy ahlul xaas ahlu xaasatil xaasati nag ñi am jagleeg jagle sunu borom mooy ñi nga xam ni ñoom bu ñuy tudd bu ñuy wax astaghfirullah ak ñuy julli ci yonent bi ak leneen lu mel na noonu suñuy jéggulu seen bàkkaar jégguluwunu seen bàkkaar pour ragal safar jégguluwunu seen bàkkaar pour yeddeel mais bàkkaar bi ñu def rus gi ñuy xam ne am na gàcce gi ñu am ci gis gi leen yàlla gis gis gi leen yàlla gis donc ñu def naka sa dul noona wala ñu wax ko loola la ñuy tuub ci seen kanamu borom ñooñu nag am na ci ñoo xam ni wa minhum man yazkuruuna allaha fi xulubihim wa minhum man yazkuruuna allaha fi uqulihim wa minhum man yaskuruna allah fi arwaahihim am na ñoo xam ne ci ñoom waa kër Cheikh ak ñeneen am na ci ñoo xam ne bu ñuy tudd yàlla ñu ngi tudd yàlla yaskuruna allaha bi alsinatihim bokk ñoom seen làmmiñ mooy tudd yàlla waaye seen xol tuddul yàlla seen ruu tuddul yàlla seen làmmiñ rek mooy tudd mooy astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñooñu yàlla dina ko nangu dana leen ca fay waaye nag pay ga day yem ci koo xam sa làmmiñ doo ngay sikkar am ñoo xam ne bu ñuy tudd yàlla seen biiri xol la tuddee tudde yàlla doonte seen làmmiñ noppi na ñu téye seen course gëmm wala ñu xoole ni teg am na ñoo xam ne dañuy gëmm kenn gëmmuloowu leen nag am ñoo xam ne dañuy téye seen course ni tekk di xool benn place nga defee sikkaruñu fekk ñi ngay sikkar ca seen biiri xol ñooñu sa téeméeri junni tur yàlla yoo sikkar seen benn per bu ñu tudd tur yàlla ci seen biir xol moo leen ëpp doole ci la nga sikkar lépp am ci biir ñoo xam ni bu ñuy tudd tur yàlla ñoom te seen roo lañ koy tudde seen sikkar bi ñuy sikkar tur yàlla romb na seeni làmmiñ romb na seeni xol seen roo moo tudd yàlla ñooña nag mooy ñi nga xam ni waxuma la ñoom seen tuyaabay bopp waaye allaaxira sax yàlla dana leen ramuloo ñenn ci jaam ñi am nañu doole boobu benn yoon bu sa ruu tuddee tur yàlla sa yaram araam na safara te bokk na ci lii tax sa ruu sikkar nga yàgg sikkar salaatul faati boo ko yàggee sikkar day mujj martaba bi day romb sa làmmiñ romb sa xol sikkarloo sa ruu bis bu sukkariloo sa ruu ba sa ruu si kar nag su boobaa yaay ki nga xam ne ëllëg danga bokk ci ñuy ram hmm. loola nag daa nekk ciy loxo loola ciy loxo la ne loxo yim nekk nag daañu xool ñu ko yeyoo ñaari ñu leen koy jox salaatul fàtte ñépp a ko jël ci waa tariixa bi waaye benn salaatu bu ci tolloo morom ji degare amu ci am na koo xam ne benn salaatul faatixim bi nga sikkaree seize mille six cent quarante et un salaatul faatix sikkar ko seize mille six cent quarante et sikkar seize mille six cent quarante ci ci jëwaratu kamal benn peru salaatul faatix mu ëpp doole li nga def lépp su ngeen bokkee mbalaanu wasifa moo yor secret bi ki teew te absente da koy xam ki absente te teew da koy xam boo ko xàmmewu rek lee nga jàll di ruus ki ni joowu teew te nekku fi ak ki fi nekkul te mu nekk fi loola ñoom ñoo koy xàmmee bu xaadara bi yéegee ñoo koy ñoo koy ñoo koy limité ñoo koy seere ñooña nag boo toogee toogaay boo wër toog ak ñoom ci biir géew bi sax ñu dagg la ci tarixa moo tax boo toogee ci géew wasifa dañu la da ngay toog comme ku feren comme kuy julli am na ñoo xam ne ferenkalaayu ci biir géew wasifa sax dañ la koy tere boo toogee ñoom toog ñoo wëtt tooge ñu dagg la atul faatiha doonte lee ki koy yàlla waroon muy Mouhamadul Bakiri nee na ku sikkar benn yoon salaatul faatihi nga tasee ma tasee yow ca kanamu yàlla te demoo àjjana na nga ma poñe ci kanamu yàlla salaatul faatihi nee na ku mu jaar sa làmmiñ benn yoon sa yaram araam na safara mais waa kër Cheikh war nañoo weesu dem àjjana kese dañoo war a soxla dem àjjana yóbbaale fa ñu fa waru woon a dem loola lépp nag salaatul faatiha àttan na ko ñu jël sekkare yi ràbb ko ci astaghfirullah xam nga astaghfirullah mooy allah suñu àlla astaghfirullah ci allahu la génne boo ko munte génnee ci allahu sa astaghfirullah des na astaghfiru allah mais allah moomu ci ngay génne astaghfirullah li nga ciy génne astaghfirullah mooy allah ñaata araf la ah ah ñeenti araf la boo ko déchiffré lu mu lay jox ah 66 ah nga dagg araf bu jëkk bi mu des lan mu des ñetti xaraf di lillahi nga déchiffré ko mu jox la 65 nga daggaat beneen araf ba muy laam mu des lahoo nga déchiffré ko mu jox la 35 nga daggaat beneen araf ba mu des haa kabir bi ñu ne haa kabir day am lu muy àndal allahu comme maska bu lu muyul dàmm moo mujj day woo mbokkam te bu woo mbokkam waaw lay woo muy huwa wala déggu leen ma allahu ñaata araf la ñeent lilaay ñaata araf la ñett ñett fekk ñeent ñaata la ah set lahoo ñaari araf la juróom-ñaar fekk ñaar ñaata la juróom-ñeent huwa ñaari araf la ah ñaata araf la lépp lépp soo ko boolee fukk ak benn la boo ko déchiffré mu jox la 177 177 moom ngay jël multiplier ko ca la nga amoon fukk ak benn mu jox la mille neuf cent quarante sept du ëpp du yées astaghfirullah ah ca astaghfirullah la génn jël leen machine yi bu ngeen jëlee machine yi allah dong ci la astaghfirullah di génne te benn allahu boobu juróom-ñeent fukki tur yàlla ak juróom benn bu ci nekk day génne ci allah juróom ak juróom-ñeent laa wax benn bu ci nekk day génne ci allahu moo tax allahu nag di ismu saati ismu saati boobu nag moo góox mboolem sekkari yépp boo nee bismillah donc asmaa yépp dugg na benn araf laa wax benn tur yàlla bu mënta génne boo mënta génnee tur yàlla yépp ci allahu moomu demal sa lasraar des na sa dégg tariixa bi des na moo tax muy ismu saati yi ci des yépp nag ay asmaa u sifaat lañu waaye benn bu ci mënta génne ci allahu amul yow kay yaa koy xam wala nga bañ koo xam moo tax magum xam bi dafa am keneen ku mu doon waxal waajee jaay xam-xam mu ne ko waaw noo def ak ki liifu allahu gi liif gi rek noo def ak moom moom néewu ko allahu ko liif gi rek noo def ak moom liif googu ni jot du taxaw <laughs> lam fa représenté lépp ngi ci biir livre gi loolu nag du caaxaan loola mag ñi dañ koo ceex yonent bi da koo yàlla da koo jël jox ko yonent bi yonent bi jël ko ràbb ca lépp jox ko Seexu Tiijaan Seexu Tiijaan jël ko ba nu ñëw ku ku muy yéene mbiram mi mu tànq jox la nga naan ku ca naan texe loola la ñu nekk commencé gu woon sax waxtaan wi waaye faf na guddi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ koy fekke ay déwani déwan te kenn bañ a yàlla dundal nu ci tariixa bi rey nu ci dekkal nu ci ñi ngi nuyu ñépp di nuyu sëñ Moustapha Sall di ko ndokkeel ci xasidaam bu rëy bii mu def maa ngi koy wax ne ko mag ñi kenn mënul tëb songu leen way leen ñooy bëgg nga way leen rek ñu yombal la yoon nga way sa way wi ak wayu waaja dafa liggéey téeréem daf koy woy waaye léeg nga liir ba yàgg mel na léegi woyatul day mel na day wesar léeg nga romb satar boo xam ni gudd ga muy gudd ne ah mënoon ngaa dagg ca booba yokku ca bee sax bu gàtt bee yow bu ko nogoy dee way di ko daaneel misaan mi da ngay yëg da ngay yëg ni muy tegee ci yoon tarixa bi loolu la xam tarixa bi lajul wax ju bare liggey la laaj kon ñi ngi la ci ndokkeel di ñaan yalla yalla yok sa fatu ak sa xam-xam nuyu sey jemil ñaan mi nga professeur nga xam ni fa tabarakallah ku ne xam na taxawaayam ci kër gi ak ci tarixa bi ndaw yu mel na la bi soxla ñi ngi leen di ñaanal bu baax di contane ci yéen fi ngeen nekk defe ni gisuñu leen ñu ngi leen di gis ndax gëléem bu songee garab car bu ca sëq xam na ko ma ngi koy xool yàlla na yàlla jàppale leen di nuyu sëriñ Nogay bu baax di ko ziyaare amoo ñi mu àndal di kontan ci ñom ñom bu nu wayee rek sha allah yalla na yalla fa leen cat da nga yek ni nogay mi ngi def lu mu bëgg mais sha allah mi ngi def lu mu xam yaa ngi ko andal yalla na yalla fa leen cat yalla jappale leen ba fi ngeen bëgg yegg ngeen yegg ma ngi koy wax ne ko xana Abdou Aziz deglu wu la bu la deglu won de xam ne bu dee da nga am jot da nga bok ci ñimi yoni ndax yaakaar naa ni fa tabaarakallaahu nuyu sëñ Allah, nuyu ñëpp beral nuyoo nag kilifa yi fi nekk ndax sëñ Abbas ja nga ngi nii ak sëriñ As Guèye ak sëriñ Cheikh Jang mi nga xam ni mooy sunu mag di sunu kilifa ci jotaay bii ndax ñun ñépp bi ñuy ñëw fi lan ko fekk fekk ko fi ak yaram bii rek fekk ko fi ak tegginam yii rek fekk ko fi ak dalam gii rek fekk ko fi ak sopp yàllaam gii yàlla na yàlla yàggal leen ñoom ci suñuy kanam ñoom ñii ñooy boroom kër gi kii boroom kër gi nag ak kiy wattu kër gi ak kiy jëlsi ci kër gi di dem bokkuñu mag ñi xàmmee nañ ñoom ñépp ku ne fi nga war a yem xam nañ te daañ fexe ba yemale fa yemale la fa ba nga yem fa te duñ la ni yem fi ndax gor soowoo sa kër ba mu ñëw nga ne ko yamal fii boo lëggee dootu ñëw mag ñi duñ la wax yemal fii waaye fañ bëgg nga yem fa fa ngay yem mag moo ci gis mu ubbi këram kay jàll ba ca biir roq ba kooku wóor na mag ñi xam na ni ku wóor la am na ñoo xam ne boo leen bàyyee waji dafa ñew sama kër sét si ma ñu tok tuti rek ëlëk sama ñëwaat sét ci waat ma daal di jënd boisson rek daal di gaaw daw rom ma dem ci jigéen ñi jox leen ko ci waañ wa mané ko waaw yow bi nga ma rombé fo jëmoon ak sa man mu way dama waaye ci jigéen seen añu dembu ba rek mané ko hmm. <laughs> te lay waxal ma ne ko daal bu dee man ngay seet bu ñëwatee yemal ci saal bu boisson loowuma la tàngal loowuma la café loowuma la ñee ña nga ca waañ way togg xaar leen fii boo yore boisson teg ko fii bu ñëwee ma jox leen ko waaye nga ma dem ba ca waañ wa di joxe boisson xanaa yow taaju nu añ moo doy waar waaye du añ ba ah, ah pour walla ni mag ñi seen kër ñoom defar nan da ngay dem di leen jéem nyu nax ñuy dof lu di teen fekk réglé nañ la bu yagg ci biir kër gi dañuy gis jigéen ñen ni leen teey leen nak wa joju fi ñew borom xaftaan bo bi tay tak wër yi da ngeen xam fi ngeen di yam ak mom bu ko dee bo ñëwee ñu fu ne nga dugg fa ñom ñu nand la ñu kompolo la te ko yëg motax ñom ñi fu leen neex lañu dugg ci kër gi day wane ni ñom jup di nuyu sunu jigéen ñu baax ñii di nuyu góor ñi ñi ñépp fi teew yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu bu ñu mënoon dañ leen di tudd kenn ker kenn ñoom sëñ Abdou Fall Maodo ñoom géeg ñi ñépp ñépp bu ñu mënoon dañ leen di tudd kenn par kenn waaye nag suñuy xol tudd na leen di nuyu jigéen ñi bu baax di kontaan ci ñoom ndaxte ku ne xam na jotaay bi yàgg na te waxtaan wi neexul ah, comme neexul nag ah léeg ngay wax rek defe ni yaa ci nekk ñun sii kii moom xaadu daaneel moom boo demee ba mu bëgg a daane rek nga dégg mu yëkkatiwaat ñun de ngal la ñun foo ko déggee ci waxtaan joxe rajo bi ndax boo déggee jërëjëf jërëjëf ji bare booy bëgg nañ nga baax léeg-léeg nga wax ñaan la sëñ bi waaw jërëjëf jërëjëf kay jërëjëf yàlla na yàlla fay la bàyyil loola lañ lay wax de bàyyil lañ lay wax maa ngi wax itam ni ab baas bis boo déggee ñu ne nan ko jox mu sànni kàddu bul guddal taxoo ñu baas baas ba foo demee ci baas ñu ne nan ko jox sëñ bi mu sànni ay kàddu sànni bul hadis bul discours bul def dara waaye da ngay gis ko ni na sànni ay kàddu mu ne alhamdulilah waa dahoo commencé mel na kuy xutba ñu ni yéey kii moom fu mu jëm sànni kàddu la sànni te joxe rajo bi daanaa wax ni itam bu guddee bul guddal bu guddee bul guddal ndax da ngay gàllankoor ay nit ndax jotaay léeg nit rus sa jóg fekk doyal na lool te jotaay li cay doyaloo nit dafa bare toogaay bu toog bu yàgg da cay doyaloo nit gëj waaj ba pare door a dugg ca jotaay ba itam dana waral nit ki doyal ca jotaay ba ba pare rus a jóg ah li ma leen di wax de ah. toogaay boo wéeruwul baaxul moo tax nogay loolu mu ne ku ci sopp werante da jóg ñu màggal ku jóg jooju dafa am solo léeg-léeg da ngay ku jóg mais na muy def danay wiic ndigg li fudd tàllalu def lu ko neex xam ni ki jóg gi yàkkamte woon na ah kon na yalla na yalla fay ñepp ci barke cheikhou tidiane ah ñi nga xamne dañoo dem Touba magali ka yalla magal ñom ñu dem di magali yalla na yalla nangul leen seenu magal ah yalla na yalla sammu leen ñoom ñu dem ak jam dikk ak jam ta kenn baña a yalla na yalla musal leen ci accident. nun tam nu waaj nag mbir mu mag mi mbir maa ngu ñëw waaw dëbb ba mokk rek dëbb dëbb waaw waaw mbir mu mag mi mu ngi ñëw nan ko waaj bu baax a baax am ci pas-pas ñu ngi nuyu sunu jigéen ñi sunu yaayee dem Maroc ñoom fii lañ daan toog ñoom soxna Xaar Njaay soxna Dabalay soxna Ndey Géey ak ñañ ko àndal fii lañ daan toog ña nga ca Maroc dinu ñaanal ñoom it yàlla na yàlla fay leen yàlla beesal yërmande ci boroom kër gi nga xam ni moonu nàmpatal ci lii xani ni moonu jàngal nàmpatal nu ci Seexu Tiijaan ak tarixabi bi xiir nu ci lii yéen ñéet moo leen ci nàmpatal ndaxte xam nga nit bu nitu yàlla bu ko ñenn dee damoo rek nitu yàlla bi mbiram yaatuwul nitu boo dégg ñu naan moom da defar nay doomam la mu yor barewul de waaw la yor daa barewul soxor gu ëpp nag la nga yor moo doyul nitu yàlla bala nga koo xam dëgg day defar ba defari jàmm ku ne xam na ni sëñ Maodo ñu mu defar bari na yàlla may na ko wilaaya goo xam ni ku mu teg loxo ba teggi ko rek waxuma nag mu teg la loxo nga teggi ko maanaam mu teg la loxo moom ba teggil ko boppam foo jaar ñu xam ni tegoon na la loxo boo ko teggilee sa bopp nag muy noonu tabaarakallaahu fii ma toog nag sañ mu Moustapha moo ma nekkal foofa ma nekkal ko fii moom itam ma nga fam nek di len baye xel ma nga fam nek yor kurusam ma nga fam nek ak kat mi am mom da bëgg affaireu kat mi ak ay xat mi neena ko xamna li nga bëgg ci kat mi ya mom day lire lire ciowa ciowa ciow lu ne mu lire mu Moustapha bal kat mi ya lu neub way geussu bu re dana ko ci dem ndax dafa bëgg xam-xam ah. muy koo xam ne mooy boroom kër gi ndax moo fi nekkal boroom kër gi yàlla na yàlla jàppale ko yàlla sàmm ko yàlla yokk kàttanam yokk dooleem yokk xam-xamam duma wax yokk yaram ndax li mu yaru bu ca yokkee dara day yembare Moussa Ba moom li mu yaru doy na sëkk bu ca yokkee leneen moom dootul nuru yar day day yembare papaam daana wax ni ah nee na xawma nee na ñàkk fayda daal nee na am na lu mu ko daan méngale yaru baax na loolu waaye nag am léeg-léeg moo xam ni léeg nga am gan gu mel ne nga nattal ko ca wàññiwul dara léeg nga am sàqum dugub waaye léeg nga am càqum safaan denc ko boo amee gan gone gii fi duggoon nag sukkoon ci yow mii di ñaan na ngeen ko bàyyi xel ak ñu mel na moom xam naa ni bunt bi dee leen ko xool ndax léeg nit mën naa yor dara dugg ci mbir pour def dara te du ngeen ko xam waxuma ni nag moom da koy def waaye xam naa ni sama buntu kër daggal na ma fa saaga woo xam ne ba ma juddoo ba tey musuma gis ku koy saaga di moom mii dama koo séen rek sama xel dem ca saaga xamoo nit ku mën a saaga dëgg bu la saagaa sa ngiru dund du jeex ndeysaan dafa am ku nekkoon sunu koñ jot joteeg nijaay ji nag ñu xeex ba ni sip mu ni waaw ah, yow de nijaay ñu leen di arrangé nag nijaay yi ni man kay man jàmm moom man na ma koo may mën naa ko may jàmm moom bu saagay jeex rek ma bax waaye fig saagay jeexul moom maag moom mu ne ko nijaay da bañ ma saaga kon kay naa bàyyi yi léegi banaa saaga yi ñu ne waaw mu ne ko mais nijaay nag danaa la leen mu ne waaw mu ne ko heure boo yeewoo teg ca lam ca teg xam nga ni kooku doo sawar a yeewu heure boo dee teg sa tànk ci suuf rek tabaarkal la kero danoo ree bay bëgg a dee waa ji noonu la ma def waaw boo yeewoo rek li jaay daal dafa am lu ma lay wax waaw waaye heure boo yeewoo rek boo yàlla na yàlla musal ci seytaane dafa am ñoo xam ne dañuy làmboo dof te dofuñu waxuma ni nag moom la mais man la ma ko dégg mu ma ba ma saagaal la mu ca doon teg wuutewul ak ku nu yabal ma ne ko xam naa ne boo xamoon li ma làmboo dëgg de xam naa ni moom bis dama di cell rek waaye man mi am na lu ma toogaale da lu ma toogaale da ak sëriñ de mu ngi ci waaye sëriñ gi dama ko incarné noonu rek maanaam sonnuma ci ma ne ko xam naa lu waaye di jaay ci côté boobu mu am na fu ba mu doy waaw sàq maa ngi fi bu deree rek ñu nattal la ci yow xam nga ci dara sa waay nee na xam na ci dara waaw dafa am nu may jàng di ko def te xamu ko Abbas mii xam na ci dara am lu may jang sama wa keur ni sax xamuñu ko ndax ñoomit dama damaa sa am kuma ci ci dom donga ma jox kuma ci ma sama loxo mu def maa penen génnee ma def benen mu génnee ba pare ma gis mu taxaw position melna melna day bëgg indi yu ko jiri mané ah man tam ma genn ndank am luma jang ñom ñi xamuñu ni ñom mawdo ñom ñi yëpp xamuñu ni am na jang ni gone yi foog nga jàng dara ndax bis du ñàkk waaye Abbas yow am na loo ci xam yow ah, am na lu ma ko ci wan tuuti rek dama ko ko doon wan rek yàlla na yàlla jàppale nu yàlla dimbali nu ñu boole xol yi mu nekk benn gis nga kaf dafa neex nekk benn daa neex boole xol yépp mu nekk benn ñuy kaf di ree rek ba aljana yàlla nañ ko yàlla defal xanaa damay jox si Moustapha Sall mu def ci ay taaliqaat ngeen baal ma ak asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jazakumullahu anna xayran yal na yàlla fayal ñu la yiw ci kàddu yu am solo yi ak njàngale mu matale mi te jege lool nag ba ku nekk mën ko jël consommé ko jariñoo ko e, werante wuñu ne xol yi naataat nañu cofeelu Seex Seydi Ahmada Tijaan yi dundaat na ci biir xol yi donte nag mësu ci génn waaye nag yokk na ci sababu jotaay bi ak kàddu yi am yu solo macha allah yal na yàlla fay la yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom amuñu lenn luñ ci commentaire lu dul allah rafet na matale na te lim fi wax lépp itam macha allah noonu la tariqa bi tariqa may la bu leen ci sax sonn bu leen ci sonal seeni xel naan moom li wax lépp yéeme na de tariqa bi lépp ay may la te may yàlla nag amul yemukaay moo tax lim fi wax lépp noonu la te lim leen waxul moo tariqa bi kenn sañu te wax lépp waaye nag lépp rek may la nim leen soññe ci salaatul fatiha itam ngeen jàpp ci ah di ko defal yonent bi hëddiya di ko defal Cheikh Sidi Ahmad Tidiane hëddiya su ko defee daal waxtaan wi macha allah xanaa kon commentaire boobu dong lañ ciy teg su ko defee fàttali leen burdu bi burdu bi ñëw na ak xadaratul jumaa bi nga xam ne fas yéene nañ ko def fii ci buntu kër gi le 22 septembre incha allah yaakaar naa ñetti ajjuma ci des moo doon ñetteelu ajjuma bi bokk na ci li ñu waxtaane woon nag mooy burdo bi nii ñu koy organiser ku nekk xam na ni am na solo te bun sañoon nag dana gën a yaatu te ay moyens ñoo koy def ñu ni woon nag képp koo xam ne yaa ngi tënku fii di fi ñëw moo xam xadaratul jumaa wala burdu beeg yépp bu dee ci góor ñi ku ko mën nga joxe 5000 francs bu dee ci jigéen ñi ku ko mën nga joxe 2000 francs boo ko defee ñu organiser ci burdu bi fukki fan yi waajal ci jotaayu xadaratul jumaa bi ni ñu ko daan defe yàlla yàlla yóbbu ñu ci ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa xanaa li ma fàtte woon rek wax ko ci làmmiñu suñu kilifa yi mooy ñu jaal sëñ waa waajuram yi nga xam ne moo wàññeeku ca ndar xam naa ni ñàkkul ne mi ngi doog ak si di fa doog jóge waaye yàlla ak jotaay bi sax amaana moo tax waaye kon yàlla mën naa àtte mu fanaanoon fa te ñàkkul ne day delluwaat incha allah bu fajaree kon nag ñi ngi la koy massawu di la ko jàll man ak sëñ Amadou njaay mi ak Babacar Ndiaye ak sëñ Aliou Ndoo mi waajoon nan pour fekk si la ci ay 10 heures waaye yàlla daa dogal oto ba ñu doon bëgg indi am gàllankoor mooy sababu mujj ñoo agsi waaye bëggoon nañu ko teewee liseeroon nañ ko itam waajoon nañu ko waaye loolu la ci yàlla dogal ñi ngi la koy jàll bu baax di la ko massawu waaw bu ko defee kon nag ñu joxeel ko ñaan rek ñu jox sëñ Cheikh mu joxeel ko ñaan ci barke guddi gi e yàlla nandal ko ci déggu kawsara yéege ko ci barsax Cheikh Sidi Ahmada Tijaani ñaanaa leen ñu itam suñu cofeel ci Cheikhu Tidiane gën a dëggu gën a yokk te ñu bañ a complexé nañu nekk ay Tidiane bu ngeen dee dox ku leen xool na xam ne yow mii Tidiane nga boo soloo nan xam ne tiijaan nga nan ko xam ci sa kurus ku la laaj dan la nga ne ko man tiijaan laa bu leen ci complexe te ngeen jël tariqa bi nekk ci di ko dundal tariqa bi ay ndaw a ko mën a dundal mag ñi li ñu mën mooy wéttali boo ko defee ñu bàyyi barkeelu bi tey ñëw di ko dundal mag ñi di ñu wéttali ndaw moo ko mën kon nag mi ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ña ngi di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ñu leen di siyaare deen balu xaq deen bal xaq ñaan sunu borom yàlla balu ñu baal baal mboolem jullit ñi ci daraje yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ne di ndokkeel bu baax ci guddi gi lépp lu luñ ci jàmm yàlla yàlla suñu borom yàlla nangul nu ko nangul mbooleem jullit ñi daraja yonte yàlla muhammad sëñ Daawuda ñu ngi nuyu baax dina la siyaara ñëpp kontaan nañu bigal nga nu ci Seex Tijaan Sërif bigal nga nu ci guddi gi yàlla nañ ko dégg te yàlla nañ ko xam rek yàlla nga nu yàgg bigal kontaan nañu baax parce que macha allah yàlla na yàlla fayal ñu la da ngay rafetlu bu baax a baax waxtaan wi macha allah da ngay nuyu sëriñ Moustapha Dia nuyu waa di nuyu waa kër gi bàyyiwuñ kenn suñu as ñoom suñu Abbas Dieng suñu Moustapha di Amadou Ndiaye bàyyiwuñ kenn ana yàlla defal leen jàmm defal na ko kon ñu def ñaan rek soxna Seyna bu Mbay jàngal ko Fatiha jàng fukki xul wallaahu ak benn ñetti peri salaatul Fatiha ñu yéene ko ko. ñaan suñu borom yàlla yokk ay leeram yàlla defal ko jéggal yàlla yàlla dàq fi mu nekk yàlla dàqal ko adduna fii mu jógee ci daraja yonent yàlla Muhammad ci barki alxuraanu karim ci ngoon rek la ma ko Amadou Ndiaye di wax bi ñuy bi ñuy julli timis la ma koy wax fatiha fukki xul wallaahu ak benn benn peeru salaatul fatiha na suñ borom yàlla nangu ko sotti ko ci ruuxam daraja yonte yàlla Muhammad yal na ko alaaxiram daxaat addunaam yàlla na rëccu lu fi doon def barki alxuraanul karim di barki Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Sarif barki Cheikh Aji Mansour si Jamil sëñ Daawuda dama bëgg nga ñaanal ñu rek ngir yàlla ñaanal ñu rek ngir yàlla waaw dégg joxe ñaan nga ñaanal ñu ñaanal ñu rek kon ñu jàng fatiha jàng ayatul kursi qul huwa allahu falaqi naasi salaatal fatiha ñu def ko suñ addiyee sëriñ ñaan suñ moom yàlla sàmm leen sàmm nu sàmm mboolem jullit ñi ci daraje yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu fasali ci yéen borom kër gi sëriñ Moustapha Dia yàlla ay aar ko aar ay njabootam sutural leen defal ko mboolem jullit ñi ci daraje yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam fatiha ayatul kursi qul huwa allahu falaqi naasi salaatul fatiha